أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi leen di yéen ñi nga xam ne yéen ñuy toppee fii ci seen chaîne YouTube Almounir TV euh, ñi am mbégte ak bànneex ñëwaat ak yéen ci seen jotaayu fiiri gént tey di numéro 157 euh, ñu fas yéene waxtaane nag ay gént ay laaj yoo xam ne ñëw nañ fi waaye balaa boobu thème bi tey mooy euh, gént ndox ak firin yu wuute yi nga xam ne am na ci ñu fas yéene la ci jukkil ñetti ñetti façon yoo xam ne boo ko géntee ndox euh, maanaam nag lan lay firi waaye balaa loolu yow mi ñuy seetaan bu fekkee abonné go bul fàttee bés bandoo boobu ñu euh, bu ñuul boobu ci suuf ñu bind s'abonner soo soo ko bësee rek bu couleur bi changé xamal ne abonné nga waaye tamit am na flèche bu wàcc boo xam ne boo ko bësee dana la indil ñetti cloche nga activé bi ci kaw mooy waral vidéo vidéo buñ defati rek nga gis ko incha allah euh, bul fàttee tamit aimé vidéo bi mooy loxo boobu def nii euh, nekk ci suuf bu bula boobu noonu euh, di sant bu baax ci topp gi ngeen ñuy topp ci jotaayu firi gént yi seen yët maanaam amuñu seen fay bu ko defee rek kon bu ñu ñëwee ci thème bi ba pare ñu soog a ñëw ci laaj yi nga xam ne ñëw na fi incha allah bu ko defee kon euh, euh, gént ndox bari na ay firin yoo xam ne am na ci euh, boroom xam-xam bi di ibnu Siréni am na yim ci indi waaye mi ngi ko tënk ci xam-xam dana firi xam-xam boo xam ne danga ko am dana firi l'islam dana firi tamit dund dund bu neex dana firi tamit gudd fan dana firi tamit alal dana firi alal joo xam ne danga ko am ni ki noonu tamit sperme dañu koy firee ndox dañ koy tuddee ndox ci alquran moo taxit day duggaale ci firi boobu noonu di firi wërsëg ak yu mel noonu niki doon ton kon danañ gis ne kon ki nga xam ne dafa gént ndox bu dee ab commerçant la mooy wërsëgam dana yokk richesse am dana gën a bëri incha allahu taala bu fekkee kuy jàng la mooy xam-xamam dana yokk bu fekkee yéefar la mooy dana dugg ci lislaam bu fekkee ndox moo xam ne mu salte la mu yàqu nag wala ndox boo xam ne day def ay dégâts di daaneel ay kër wala inondation ak yu mel noonu kooku tamit day firi yàqute dana firi bàkkaar dana firi tamit alal joo xam ne lewul kon loolu valable na ci euh, ku gént ndox euh, ñett yiñ la waxoon nag euh, balañ cee dugg ba léegi bu fekkee ndox moo xam ne ndox mu dal la day firi yàqule goo xam ne danga ko yàqule ci sa wërsëg maanaam sa am am boo xam ne dana yàqu wala dund bu jafe boo xam ne danga ko dund wala feebar boo xam ne dana la dal wala sax nga changer sa façon jaamu yàlla maanaam foog noonu sukkandiku ci diine ngir jaamu yàlla nga changer ko doo génn ci diine nag masalan bu fekkee da nga nekkoon ci benn ngir nga changé ko dem ci beneen ngir ak yu mel noonu kon loolu moo nekkoon introduction bi boo bëggee ñu firi la sa gént da ngay envoyé da nga ñuy woo ci numéro 77 943 77 41 ñu ñaan suñu technicien mu affi mu affiché ñu ko 77 943 77 41 foofu ngay woote appel direct wala nga yónnee ko vocal whatsapp waaye bu mu ci mën di doon léegi 2000 la incha allahu taala. da ngay envoyé 2000 après nga woote wala nga yónnee sa vocal incha allah ñu firi la bu dee ci whatsapp la dañ koy gannaaw boo ko envoyé ci Wave wala Orange Money ci même numéro bi euh, da nga koy capturer nga envoyé ko par message bu ko defee ñu tontu la incha allahu taala euh, loolu mooy euh, temps bi nga xam ne kon ñu ngi koy jëfandikoo ngir tontu gént yi bu ko defee rek kon bi ci njëkk mooy ki nga xam ne dafa gént yor ndox mu def ko ci soow wala mu def ko ci satala wala mu def ko ci kaas wala ci kopp wala ci bouteille wala sax ci mbuus ala kulli xaalin bu mu ko ci mën di génte ibnu sirayni wax na ne képp koo xam ne dafa gént yor ndox yore ko wala mu gàddu ko wala mu yenn ko kooku day firi bu fekkee célibataire la dana euh, dugg ci néegu sëy balaa yàgg moo xam góor la wala jigéen la euh, dana firi nee na tamit dana firi alal ju bëri Eh, bu fekke mom kiko gënt ku ñak la wala ci jamono bobu dafa bankon moy bank gi dana dañ inshallah allah ibnu siréen gis na nak tamit gënt di sangu sango ndox mu sedd neena kon koku day firine bu fekkon jamono da danga am am say bor danga ko dang ko fay ni ki doon tamit bu da nga febar jégglu bu nga febar moy da nga wër ci febar bi bu fekkon tamit ko xam dafa bari ay bàkkaar la moy dana bala niki non tam kum fekkon ci kasso nga gentu ko ngay sangoo ndox mu sedd moy da nga genn ci kasso bi da nga am sécurité Inshallah, allah dana firi tamit sécurité ci ko xamne dafa am lu muy ragal ñaareelu gentu bi moy gentu di ñaan di naan ndox nga di ko euh koku buñ sukkandiko ci wax ibnu siré ni neena gentu di naan ndox mu neex ngay faral di ko lu bari rawati na kooku day firi dund bu neex boo xam ne danga ko dund day firi tamit gudd fan képp koo xam ne da ko naan maanaam ndoxu dex nga di ko naan kooku day firi ne euh, da nga amee alal ci waajoo xam ne euh, melokaanam day mel ni melokaanu dex googu boo defee comparaison dex gi ngay naan ak yeneen dex yi bu fekkee dex boobu moo gën a neex moo gën a rafet yeneen dex yi mooy da nga am alal ci nit ku ràññeeku koo xam ne ku bëri alal la fekkee nag dex ga gu tuuti la wala sax dafa wàññeeku daraja na nga ko jëlee ci nit ku wàññeeku daraja tamit euh, gént di naan ndox di ko naanee ci géej day firine danga am alal joo xam ne yaa ngi koy jëlee ci àttekat wala borom grade nit koo xam ne ci nguur la bokk euh, gént tamit di naan ndox wala bokk nga gént di arrosé tool kooku day firi ne da nga am wërsëg wu bari Euh, yaa ngi koy jëlee ci euh, maanaam wërsëg wu bëri woo xam ne dana ànd ak alal ak ay doom ak njaboot gu gu barkeel ñu leen di fàttali ne ba léegi tamit euh, mën ngeen ñu topp ci TikTok bu fekkee yaa ngi ñu seetaan ci TikTok ñu ngi lay ñaan bul fàttee abonné bul fàttee bës bouton plus boobu ci sa wet bul fàttee tamit like vidéo bi bu fekkee li ñuy wax am na solo nga def commentaire incha allahu taala niki noonu tamit lañ koy sàkkoo ci ki nga xam ne mi ngi ñuy seetaan ci Instagram el bi <clears throat> ñetteel bi mooy gént di sotti ndox euh, ndox mu set nga gént di nga gént gis ko wala nga gént di ko sotti jëlee ko fenn di ko sotti fenn euh, kooku bokk na ci yi nga xam ne tamit euh, yu baax la bu fekkee ndoxu ndox mi da gént di ko sotti fenn kooku dana firi yiw ah, comme ni ko im si Ibnu ni waxee yiw bu bëri boo xam ne dana ñëw incha allah lu baax loo xam ne danga ko am ni na tamit bu fekke da nga genti tim ndox mu set nga ci gis sa bop melni kuy setu koku dana firi ne da nga jeflante ak sa wa keur jeflante bu rafet euh, bo xamne mom lañuy sakku ñuy euh, non tamit ki nga xamne dafa di soti ndox dana firi ne dana dundu ay circonstances yo xamne yu jafé la manam ay jamono yo xamne dal dana dundu jafe-jafe inshallah allah euh, ni tamit dana ci ñak alal ju bari gént li soti ndox kon dana firi ne da nga dundu ay difficultés yoo xam ne danga ci dépenser alal incha allah ni ko noonu tamit yi mooy ñetti gént yi nga xam ne moom lañ tànnoon ci euh, firiinu ndox euh, ñi ñëw ci laaj yi ki neen dafa gént jëkkëram ju njëkk mu mel ni ñëw di ko mu ñëw di ko siif nee na muy jàng ayatul kursi ak laqad jaakum mu mel ni waa ji dafa mujjee daanu euh, ni ki noonu tamit ci gént gis na woy juram nee na mu yor xale bu ndaw Muneko ne ko eh, ci genti gi mu ne ko da nga am ay seex neena ci genti gi am ko ku ne ko eh, boo amee jàmm ak sa yaay da nga am li nga bëgg eh, genti gi sa jëkkal ju ñëk mu lay jema a muy firina koku xeyna mi say tank ba mu wala amna ay wax yu mi jël di ko sa der genti jang ayatul kursi nak moy muccu go xamne aji genti ji dana ko yubari, ci yu bari ndiki noonu tamit genti di genti di akum na firi gudd fan Euh, ak mucc ci seytaane ak ay pexeem ni tamit gént euh, nga def ko kooku daanu mooy mboolem pexe bu muy jéem mooy du la mënal dara gént euh, xale bu ndaw day dindi stress ni ki tamit gént ñu ne da nga am ay seex mooy da nga dund dund bu neex incha allah balaa yàgg ni ki noonu gént ñu ne la boo amee jàmm sa yaay da nga am li nga bëgg kooku loolu lay firi incha allah mooy boo bëggalee sa yaay yàlla mën na la may ndam ñaareelu gént bi keneen dafa gént nekk ci place bu xat nee na yaayam di ko dóor naan ko danga iñaane diw ak diw nee ci gént gi nag muy jooy di weddi après mu génnee ko muy jël bagage am di dem ak loo xam ne am njaay la mu doon jaay siwo bu def fonde nee na yaay ji nag toppaat ko di ko neexal ma nga nekk ci lëndam waaye mu génn ci génn yaay ji mi ngi nekkoon ci leer waaye moom mu génn ci lëndam gi fekke ko ci leer gi Eh, gént nek ci place bu xat koku day firi eh, manam, xat-xat boo xam ne da ko dund wala xat-xat yo xamne ne ci yaangi ci di dund sayadi la dóor nak loolu lu bax la barke bu joge ci yaay la ak ay ñaanam yo xamne ne dana la sobe ci lu bari euh na mu gént ne ñu da nga dangaa iñaane diw ak diw moy diw ak diw mom mu la wax ni danga leena iñaane eh, li am yow dang ko am insha taala bu fekke ñoo la tane manam yow nga am liñ am bu nexe yalla Euh, nee na gént di jooy dana firi mbégte euh, ni ki noonu tamit euh, gént di génn ñu génn la kooku dana firi maanaam ndam loo xam ne danga ko am ci sa dund da nga am loo xam ne moo gën dund bi nga nekk nii gént ñam kooku day firi yiw ak ay xéewal yu ñëw gént nekk ci lëndamit baaxul ay xat-xat la nee na nga génn ca dem ci leer baax na génn ci ay xat-xat la ñeenteel bi ki neen dafa gént benn jigéen boo xam ne moom ñoo bokk liggéey ñoo jàkkaarloo place ca marché ba nee na mu gént ndaw si bàyyi place ngir wuti beneen place nee na moom ci gént gi xelam mi ngi nekk ci jël place ndaw si nekk noonu mu ngay xalaat naan est-ce que nekkul dafa am xaalis bu mu jël ci compte bi bu mu warte jël moo tax euh, ñu jëlee ko foofu ma ngi cay xalaat daal waaye ci gént gi euh, foofu la yem nee na nag ci ge euh, loolu li muy firi mooy euh, maanaam ndaw sos dana am lu gën dana am avancement boo xam ne yow danga ci bénéficier wu danga ci am comme da nga avancé comme ni mu avancé incha allah taala maanaam avancement boo xam ne dana la ci wàll comme ni ngeen bokkee di liggéey euh, juróomeel bi nee na dafa gént yor xale bu ndaw xale bu jigéen bu ndaw di dox ànd ak moom jëndal ko ay yére yu bees fekk xale bi instant bi dafa feebar waaye yëre yi gàtt ko Euh, kooku day firi ne euh, maanaam gént yor xale di doxak moom jëndal ko ay yére bees yére day firi xéewal ak teraanga àdduna bu fekkee rawatina yére yu bu fekkee yére yu bees la euh, nee na nga solal ko ko jotu ko mooy koo xam ne daal dana egg foo xam ne dana kawe njortu ay way juram maanaam li way juram di njortu ak la muy am daal mën na wuute lay am yàlla ki xam juróom benneel bi mooy dafa gént gis ay xaritam ay jege ñaaleem Eh, nee na kenn ci ay jegeñaaleem ñoo gént gis muy xuloo ak kenn nee na nag kooka di sañsa ak di reetaan eh, mooy sa noon jekk goo xam ne dana la ko jekku walla wax yoo xam ne dana ko wax ci yow walla maanaam mbégte moo xam ne daal sa noon dana ci nekk incha allah gént juróom-ñaareel bi nee dafa gént gis benn conteneur eh, nee na conteneur ba nga fees dell ak xalaat ak glace nee mom mi ngi and ak ñaari xalé dal euh, ngir ñom ñu mucc melni dafa am ci xat-xat buñ nek mu and ak ñom ngir ñu mucc euh, gënt glace nag dana firi jamm dana firi jamm comme niñ ko waxee ci gënt ndox mu sedd dana firi jamm ak salam bo xam dang ko am ak dal inshallah gënt di euh, xétali nit it baxna kok moy ndam lo xam dang ko am ci manam, njekk go xam dang ko defal dom adam Eh, li lañ amone mbekté ak banex ngir présenter leen ko ci sen jotaayu frigent numéro 157 di leen jajeufal ci top gi nga